wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi diin mbokki jële yi mbokki àdduna bi mbokk yi seetaan Sunugal 24 maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di ñaan yàlla defal ñu jàmm defal leen ko bi jaahi sayyidil wujud salawaatullaahi wa salaamu alayhi ginnaaw loolu di wax ne dellu siwaat nañ ak yéen niñ ko baaxoo def ci seen émission bi nga xam ne moo tudd leerlu ngeen ciy faral di ànd ak seen mbokk Mouhamadoul Bachir Thioune léegi-léegi nag ñuy faral di am ay kilifa yoo xam ne danañ leen di Euh, soxla ci jotaay bi ngir ñu ñëw leeralal leen lépp loo xam ne da ngeen ko soxla ci seen mbiru diina wala ci seen mbiru àdduna ci noonu lañ def nag ba am genn gan gu mag goo xam ne tey moom lañu ñu woo pour mu ñëw ànd ak yéen ci waxtaan bi incha muy kilifa di imaam waaye di nekk euh, koo xam ne daay la nekk ci média mu ngi nekk ci benn télévision bi ñuy wax euh, Africa 7 ak rajo Africa set foofu la nekk dafa liggéeyal lislaam kooku nag mooy oustaz euh, Omar Badiane moom la ñuy dalal tey moo nekk suñu gan ngir fas yéene ànd ak ñun ci waxtaan wi incha xanaa dañ koy jox kàddu gi rek mu nuyoo ñu daal di sóobu ci waxtaan wi incha allah oustaz ñu ngi lay nuyu. alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin bahjatil wa diyaihi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari al mbokki jullit yu tedd yi nekk ci biir réew mi ak biti réew di suivre Sunugal 24 yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu ci kàddu asalaamaaleykum wa rahmatullah wa di nuyu sunu mbokk sunu xarit sunu wëllëre al imaam Mouhamadou Bachir xafidahullah wa raahu ci jataay bi nga xam ne prié nañu ci tey incha allah di nuyu mbokk yëpp. rawatina sunu mbokki Saalum Saalum yi ak fu ñu mën a nekk ci biir réew mi waaye tamitam rajo ak télévision bi nga xam ne fa nañ jóge ko di directeur général muy Alioune ak ndaam mi nga xam ne ñëpp ñuy jàpp ci liggéey bi Cheikh Bachir. jërëjëf euh, oustaz tey ñu war a waxtaanee bonk bu am solo ci ab société. Hmm. nga xam ne daanaka ab société bu baaxee bu bu loola baaxee bonk bi bu baaxee société ba baax waaye bu fekkee ne. loola baaxul société bu mënta baax loolu mooy lu ñuy wax yar muy a tarbiyatu al islaamiya mooy tarbiyatu islaamiya mooy yar nit ki ci yar boo xam ne yaru islaam la donte nag am na fi ñoo xam ne nekkul ay jullit mais comme majorité bi ay jullit lañ dañuy wax tarbiyatu islaam comme nit ñëpp nga xam ne ñoo nekk senegal ñi fi ëpp ñëpp ay jullit lañ kon mën nañu waxtaane yaru islaam mm-hmm. oustaz boo ñu bëggoon a leeralal lan mooy tarbiya maanaam baatu tarbiya lu muy tekki. Hmm. loxatan ci olof. Hmm. loo ñuy wax. jërëjëf euh, Cheikh Bachir jërëjëf ci question bu am solo bi. Hmm. Euh, xam nga bu ñu waxee tarbiya. ci lislaam mooy fi'lu raba. yarbu. ay zaada wa mooy loo xam ne dafay dolleeku. wala dana dolleeku mhm. wala boog dana màgg mhm. loolu nag boo xoolee mhm. masdaru baat bi mu ngi jógee ci fi'lu rabba rabba rabba léegi nag mooy lan boo ko xoolee ba tey dalay jox nasha'a nasha'a waaw nasha'a mooy loo xam ne sos nañ ko ba pare muy am évolution voilà di yokk di yokk di yokk comme ni ko yàlla waxee ci alquran fa ida anzalna alayha almaa ihtadat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahiij macha allah kooku soo demee suratul xaj yi da nga ko fa fekk yàlla ne bu fekkee wàcce nañ ndox fekk am jiwu nekkoon ci biir suuf nee na suuf si dafay toj nga gis muy yokk masalan gàncax gi di génn daal di sax ci bépp xeet woo xam ne bu rafet la maanaam xeetu gàncax gu rafet gu nekk nga gis ko mu mhm. nekk loo xam ne dafay génn ci biir suuf mhm, loolu mooy lu xatan mhm. léegi bu fekku baat bi da ko jël nag istilaahan mooy ci sharaan mooy hiya amaliyatu tanmiya wa ta wa wa wazaifu l insaan macha allah amaliyatu tanmiyatu wazaifu l insaan macha allah kon boo ko xooloon tey mooy loo xam ne tey nit ki dana ko meloo ci lan ci ay jëfam nga xam ne bu jëfee kenn du ne cam dëgg la waaw ñëpp dañ naan waa ji jëfam ji mu jëf tabaarakallaahu jëf ju baax la mbax comportement bi moo koy firndeel ci ay jikko waaye ci xelam moo xam ne mu mat sëkk la waaye ak lan ak ak wóoram ak li nga xam ne moom la ñuy tuddee mu saqif lay nekk su boobaa mooy koo xam ne dafay cultiver su jëfee rek dangay gis ne jëf ji day teg tele ne jëf yi jëf ku yaru la macha allah charan voilà kon loolu xam naa ne bu fekkee ne ci luxatan mooy li ma la njëkk a wax charan baat bi moo hmm. nekk noonu léegi bu la neexee nag mu waxal la ahamiyee ak solo si nga xam ne yar am na ko ci alxuraan macha allah loolu ci li ñu ñëw ci ñu deuxième laaj bi incha allah mooy dawru tarbiyati fil mujtama maanaam yar maanaam ban ban rôle la am ci ab société hmm. maanaam société boo xam ne dañoo yaru hmm. lan ban ban ban ban euh, rôle la ci ab yar di suyee macha allah waaw jërëjëf Cheikh Bachir yar dafa am solo. Mhm. parce que ci la ñuy xàmmee. Mhm. maanaam société bu nar a dem ci kanam. dëgg la macha allah. waaye gis nga lépp loo xam ne. Mhm. yar jiituwut ci. surtout ci ab société jàppal ne. gannaaw rek lay dellu. boo demee alquran. bi ñu yàllay wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne huwa alladi baasa fi l ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba walxikmata wa in kaanu min qablu la fi dalalin mubin sadaqallahu al-azim macha allah yàlla subhaanahu wa taala dafa wax ni mooy ki nga xam ne dafa yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa minhum léegi bi mu ñëwee muy jàng ay laaya mooy ay alquran kon li ñu ci déggee mooy ndekkee pour ñu am éducation islamique dañuy dellu ci alquran ak sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam macha allah alayhim ayati mhm. waaye wuyu dakkihim bu ñu ko jàngee mhm. moom moo leen di defar moo leen di defar ba nga xam ne boo leen gisee da nga xam ne ñii ñuy yar la mhm. kan tarbiya kon da gis ne ci alquran la ñuy dellu ak sunna moo ñu mën a defar wallaay macha allah dégg nga waaye wa yuallimuhumul kitaaba wal xikma mu jàngal leen téere bi bañ ràññee waaye itam euh, Euh, euh, jox leen xam-xamu sunna fekk mm-hmm. moom mooy xam-xamu sunna mm-hmm. mu xamal leen ñu sunna parce que sunna mooy firi alquran sunna mooy firi alquran <laughs> mooy firi alquran dëgg la yàlla nee na te fekk lu jiitu woon loolu xamu leen woon dara wallaay kon yonent bi gis nga rôlam mm-hmm. rôlam moo war a nekk bépp jàngalekat role bi mooy fexe éduquer nit ñi la benn mag doon wax jàngal leen ba ngeen ne ar yar leen ba ngeen ne nër macha allah kon gis nga loolu moo tax a ñëw mhm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax alquran mhm. yàlla wax loolu ci e, li nga xam ne maanaam mooy mhm. euh, suratul euh, suratul jumaati soo demee yàlla wax na feneen ne qad aflaha man zakkaha ci dëgg-dëgg texe na koo xam ne fexe na ba nga xam ne yar na bakkanam bam sell macha allah parce que yar li muy def ci nit mooy day fexe ba nga xam ne tey nit ki su waxee mu feeñ ci waxam ñu ne askeej bu jëfee. Mhm, mu feeñ ci jëfam. Mhm. su jëflante tamit kenn du na cam. macha allah te loolu Cheikh Bachir. Mhm. li koy def ci jullit bi. mooy éducation islamique. moo tax yàlla ne ci dëgg-dëgg texe na wala xadd la baatu xadd la utiliser. xat arafu la. maa maadin. <laughs> voilà voilà <laughs> dëgg-dëgg texe koo xam ne tey fexe na ba nga xam ne. tabaarakallaahu yaru na. yàlla boo demee ci euh, yàlla wax na ci alquran. ci xanaa xanaa imaam loolu moo tax. Euh, suñ yaay Aysa bi ñu ko laajee jikko yonte mu ne kaana xulu xul Quraan rek. waaw que tënk ixtisaar wax ji jeex na <laughs> parce que loolu bu xasee am. Ah. daanaka dara de sutu ci. dëgg la parce que bañ ko laajee lan mooy jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy yar mu jax taag. voilà <laughs> moo tax moo tax. Ah. ñoom dañ ci dañ insister bu baax ba loolu nag. Mm-hmm. su boobaa da ngay gis ne turas boobu. Mm-hmm. turas boobu. Mm-hmm. Cheikh Bachir muy yow. muy man. muy mboolem doaat yi. mboolem imam yi. war nañuy fexe di insister ci lool bu baax a baax a baax a baax yar njaboot gi mhm. yar bi nag damay wax toujours ne mhm. Cheikh Bachir dafay tàmbalee ci biir kër mhm. génn. Mhm. parce que li nekk ci biir kër yi moo génn ci mbedd mi. wallaay dëgg la te loolu mooy boo seetloo. Mhm. Euh, manque éducation bi. da nga mhm. xam ne boo demee dafa feeñ ci côté yëpp yëpp yëpp yëpp. boo ko boo ko gëstoo tax xam naa bu ñu demee ba ci biir waxtaan wi. wallaay dëgg la loolu dana ci feeñ moo tax boo gisee yar ni mu amee solo. moo tax boo demee ci alquran yàlla day wax feneen ne yaa ayyuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara waquuduha annaasu walxijaara alayha malaikatun qilaadun shidaad laa yaasuuna allaha maa amaruhum wa yafaluuna ma yumaruun yàlla ne yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla góorgóorlu leen ba fegal seen bopp safara fegal leen ko fegal ko seen njaboot léegi Cheikh Bachir nan la ñuy fegalee sunu bopp safara fegal ko sunu njaboot mooy fexe waaye fexe yar sunu njaboot macha allah fexe parce que nit dafa am loo xam ne bu xasee lënt bu xasee dañ ci bopp maanaam dafa am riir goo xam ne boo xasee dañ ci nit ki mhm. Hmm? Mhm. su boobaa it faut si lan nga cay la fay ji dana mën a sax te bu saxee mhm. dana dem ba nga xam ne dana meññ Cheikh Bachir te loolu mooy at tarbiya alxasana wallaay dëgg la nga xam ne ñun ñëpp tey kenn ku nekk ci ñun na bay xel ne dafa am euh, loo xam ne yàlla ci aw loosam la ko gàcc te mooy lan njaboot gi la yàlla dénk nga def ci sa effort moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ci xadis ne maa naxala waalidun waladahu afdalu min adabin xasanin nee na voilà léegi nee na woy jur mënta may mukk doomam may boo xam ne moo gën yar boo rafet kon loo fi mën a bàyyil sa doom te yaru ko bàyyiloo ko dara moo tax benn mag pour ma daaneel foofu jox la nga dem ci beneen question bi benn mag dafa waxoon lu am solo Cheikh Bachir mu ne sa doom boo ko jàngarut baa sin mi mara baa Euh, bu ko bàyyee dara. Mhm. soo ko dalul baasin mimar mu ne mhm. baa gi bu ko bàyyee dara. loo ko bàyyee man naa yàqu. waaw siin gi mu ne bul séentu ci moom dara bu fekkee dara loo ko siin. mu ne miim gi bu boobaa bul ko miimal dara. allah kon gis nga loolu da nga ciy déggee Cheikh Bachir ne. alquran dafa ñëw pour jox ñu ay orientation yoo xam ne buñ ci jàppee njaboot gi dañ yaru. dañ tege ci saratul mustafi bala wallaay dëgg wallaay dëgg la. waaw euh, am benn ci biir waxtaan bi léegi. Mm-hmm. Mm-hmm. mooy hasanin. Mm-hmm. mais dama gis fii Sénégal. nga gis bu 31 décembre jotee 24 décembre da nga gis ñoo xam ne ay cadeau da ngay dem marché da ngay yéemu ci yàlla ji lu nit ñu koy jëndal seen doom yi te duñ leen yar léegi nag kon dafa mel ni yonte bi dafa xamoon ne dañ yegg si mel nii mu leen di avertir mhm. jamono dana yegg si foo xam ne nit ñi lu ne dañ ko defee seen doom boo amee entrant sixième jëndal la vélo jëndal la portable jëndal la lii jëndal la lii 30 décembre 24 décembre lu nekk ñu koy def ci xale yi te duñ leen yar yar bu baax mhm, mhm. kon dafa mel ni ko loolu bokkut ak li nga xam ne moom la yonent bi salawaatullahi wasalaamu alayhi jàngale woon. effectivement waaw léegi bu ñu yegsee ci beneen laaj bi. sa ñetteelu laaj. Mm-hmm. mooy kan mooy responsabilité ci yar. ndax euh, état mooy responsabilité. Mm-hmm. wala jur mooy responsabilité. Mm-hmm. wala sax parents yi ñooy responsabilité. ci tarbiyatul awlaad. macha allah jërëjëf Cheikh Bachir question bu am solo. Euh, boo seetloo responsabilité partage la. jur bi dafa am lu ko war. waaye itam état bi da ko am lu ko war mhm. yow mii ilimaan am lu la war mhm. kenn ku nekk nag li nga xam ne maanaam mooy sa gar mhm. soo ko taxawee penc mi jat waajur bi yàlla joxut la ay doom ne la booyal leen lu leen neex ñu def ba sax gis nga yar ba fa muy tàmbalee ba ngay takk yaay ji sax ci lay tàmbali lay dëgg la ndax waxuñ la koo gis rek takk ko dégg nga wax ju bu baax ndax yonent bi ba muy jàngale critères yi ñuy takkee jabar dafa ne mun nañu takk jigéen ci askanam mën nañ koo takk ci alal dégg de waaye mën nañ koo takk ci taaraam waaye man nañ koo takk ci diine mu ne booy tànn tànnal borom diine boo ko defee dóoroo sa loxo ci suuf kon gis nga loola mu ngi xante li nga xam ne mooy éducation bi dëgg la parce que dafa ñu wax ne moytu leen gàncaxu sën <laughs> yow mi dëkk Saalum ma ak man ñun xam nañ ñuy gàncax sa waaw waaw Basi boobu noonu. waaw <laughs> léeg-léeg Cheikh Bachir. macha allah da koy gis mu taaru lool. mais suñ demee ba jëm mujj gi rek boo seetloo. bu foccee rek nga ne bu foccee rek tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin. macha allah da ngay gis ne daanaka du meñ du du du bu fekkee ne dugub la. da ngay gis du am du du am pepp du am dara. Euh, oustaz daguma la sax. Mhm. xam nga yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa am benn hadis bu wax taqayyaru li nutfikum fa innal arq ah, dasaas na tànn leen seen toq mën yu fu ngeen koy denc hmm, hmm. ndax sidit day royaat kon xale bi ci yar bi ngay wax noonu hmm, soo bëggee mu yaru il faut nga tànnal ko yaay joo xam ne nii yaay ju baax lay doon ndax wal baladu tayyibu yaxruju nabaatu bi isna rabbi waaw <laughs> voilà kon gis nga ne boo seetloo kon loolu tax yonent bi sallallahu wax ñu ne kon buñ koy tànn nañ bàyyi xel yi mu ne nag na ngeen tànn borom diine kon kon borom diine boo ko tànnee su boobaa loolu dana feeñ ci xale bi. Mhm. moo tax. Mhm. soo seetloo nag bu fekkente bi ni nag ki nga xam ne mooy tànn tànn na borom diine. Mhm. su boobaa gis nga ne tarbiya bi. Euh, rôle bi mu ci war a joué daf ko joué su boobaa yaay ji li mu war a joué ci rôle ko joué. bàyyi ji li mu war a joué ci rôle daf ko joué. parce que ñoom ñëpp dañ xam li leen di xaar. mooy lan yàlla joxul la njaboot gi. rek ne la booyal leen. ne la génne ci sa loxo moo tax boo seetloo sa am na xadis bu ñëw. képp ku am ñetti doom yu jigéen mm. nga jàngal leen yar leen bañ mat a dugg ci néegab sëy nga dugal leen ci mm-hmm. yonent bi ne loolu sa barrage la ci safara mm-hmm. maanaam loolu mm-hmm. mën na la musal ci safara yow mi leen éduqué kon loolu da nga ciy déggee solo si nga xam ne tarbiya am na ko ba tax na waaw mais oustaz sa wax jooju ne est-ce que jamono jamono wi diwut ko effectivement parce que lu tax mooy damay dégg benn terme mooy ñu naan jamono ji ñu toll njaboot gi njabootu kanaara la dañuy jiitu mu topp sa kaw. Mhm. léegi noo koy boole ak nga <laughs> nii. waaw ni ma koy ni mooy dama gis ne. Mhm. loolu yëpp li li ko yokk rek mooy daanaka ne suñ diine dañ ko dul jàng dañ ko war a jàng. waaw ah, dëgg la macha xam ne amul fenn foo xam ne mhm. ci amul fenn. dëgg la que bu fekkee ne expérience. kon kon kàddu googu kàddu yàqu. dafa dàqu dafa dàqu dafa dàqu dafa ah, dàqu loolu wérut. parce que li la koy firndeel mooy. addina bi ñu ciy ñëw. yow yaa ko fi jiitu ci addina. peut-être expérience yi nga dund moom dundul ko li nga xam xamu ko. fi nga jaar ci éducation jaarut fa. kon kooku yow yaa ko war a teete. yaa ko war a teete. kon dama bëgg wax ne. Euh, wala fekkee dafa am loo loo a laaj. non non dama bëgg nga insister foofu parce que dama gis ñu bëri xale yi naan. Euh, ay parents yu bëri naan xale yi léegi da naxante ak ñoom. Mm-hmm. pourquoi loolu daal. non comme li ngay wax noonu rek. Mm-hmm. xale naka nga koy dakkee yaayam indi ko. Mm-hmm. def ci moom lu nekk. mu ñëw ci kër gi. nga yor ko dépense bi moom ak yaayam ak léppam fay seen ndox fay ba noppi ëlbatiku di négocier ak moom pour yar ko. wala sax nga ne moom day jiitu nga topp ci ginnaaw pourquoi. voilà mënta nekk manta nekk loolu loolu loolu saret. Mhm. saret Cheikh Bachir. Mhm. du jiitu fas. dëgg la <laughs> loolu loolu wax la joo xam ne wérut. Mhm. ba tax na. Euh, koo gis mu nangu noonu. Mhm. xamut li ñu gàll ci wàllu mhm, mhm, mais su ko xamee xam ne yéen ñun ñëpp ay sàmm lañ. ni ko yonent bi waxee sallallahu alayhi te kenn ku nekk. liñ la sàmmloo bis dina ñëw ci kanam yàlla ñu laaj leen liñ la sàmmloo noo ko sàmmee. kooku su boobaa bu fekkee njaboot gi wax nañ lii wala ñuy jëfee lii nga nangu ko. yow xamula responsabilité bi yàlla gàll ci. dëgg la dëgg la kon loolu il faut ñu bàyyi ci xel. ndax. da nga gis ñoo xam ne dañ war a dem ba barta bi aljanna hmm. yàlla da daan waqifuhum innahum mas'ulun eh, ma lakum la tanasaw eh, macha allah macha allah taxaw leen dañ leen war a laaj hmm. lu tere tey ngeen dimbalante te li ko waral yëpp mooy la nga waroon a def defuloo ko hmm, te nag inna samaa wal basara wal fuaada kullu ulaika kaana anhu mas'ula wallahi wallahi wallahi macha allah yàlla subhanahu wa taala lim ñu jox yëpp ci ay membre joxuñu ko ci njaboot nañ xam ne responsabilité boobu un jour viendra. Mhm. daañu rendre compte ci kanamam. lim ñu joxoon mhm. nan lañ ko sàmmee woon. kon nit dafay def jullit dama bëgg a wax du mhm. manière générale. dafay def li mu war a def ba noppi. li ci def nag mu jooyal ko ci yàlla. boo gisee boo yoree njaboot tey ngay ñaan. yàlla teg leen maanaam njaboot gi nekk njaboot gu baax xam nga lu tax. ndax njaboot gi bu baaxee. Euh, loolu lim lay jural ci kanam yàlla mooy. kii lam waroon a taxawee taxawee na ko wallaay dëgg la mais bu ñu sofaanoo itam da ngay bàyyi xel ne ëllëg yow di nga rendre compte yàlla mhm. moo tax nga naan rabbana hab lana min azwajina wa mhm. durriyatina mhm. qurrata ayunin wallaay wallaay <laughs> waj'alna lil muttaqina imama macha allah di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal la jàmm ci njaboot nga xam ne boo leen gisee sa xol sedd hmm? lu tax lu waral loolu mooy da bëgg njaboot gu baax njaboot gu baax nag ku ko bëgg la la war yëpp da nga ciy taxaw li nga mënut nga jooyal ko ci yàlla li nga xam ne mënoo ko nga ñaan ko yàlla kon njaboot da nga gis ne kon jur dafa am responsabilité bu rëy bu mu ci am. deuxième mooy boo seetloo état bi dafa am lu ci war a waaw muy lan. Euh, olof dafa am lu ñuy wax baat bu am solo. Hmm. dañ ne boo amee doom. Hmm. juróom-ñaar at yi. Hmm. njëkk yi mën na nekk sa buur moom xale bi. waaw juróom-ñaari at yi ci topp. fexeel nekk buuram. juróom-ñaari at yu fi nekk yi ci topp. soo nekkul buuram buur nekk buuram. déglu déglu wax ji bu baax. <laughs> loolu moom garaaw na de oustaz lu doy waar lu doy waar Cheikh Bachir. at yu njëkk yi parce que hmm. xale bi il faut que si. Hmm. ngay daanaka yim bëgg da nga ciy góorgóorlu sa kemtalaay kattan. Hmm. def la nga war a def yëpp. mooy lekk muy naan. waaye di joxe bon exemplaire ci kanamam. da nga wax ji bu baax. lu mu bëgg daanaka da nga ci xëy suba gontu ci. juróom-ñaari at yi ci topp mais fexeel mu dem jàngi. même jàngi. nga xam ne moom dana jàng pour xam. mais fi ne boo seetloo. Euh, buy école bi. daanaka ne dañuy jàngale mais du ñu yàpp mhm. te yow xam nga ci dara ñun ñu nekkoon ci daara ci juddoo ci yaroo ci bëggoon naa ci ñëw sax <laughs> voilà xam nga ñun ñi mooy mooy mooy dawrul muallim voilà voilà voilà kooku tamit waaw xam ma ma def ma ma jàll waaw mais boo seetloo juróom-ñaari at yooyu kon da ko war a yóbbu ci daara ji mu dem jàngi mhm. man daara ji lay wax mhm. waaw du ma utiliser sa baatu école mais damay utiliser baatu daara lay utiliser waaw su ko defee nga xam ne dañ koy dem mu dem jàngi suñ jógee ci loolu juróom-ñaari at yi ci topp. Mhm. bu fekkente bi nii yaruut. Mhm. buur teg ci moom loxo. Mhm. parce que dana def loo xam ne. tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin police koy jël ci kër ga. waaw la ko wax. kon ñetti ñetti ñetti yooyu. il faut que suñu bàyyi ci xel ci ci li nga xam ne maanaam mooy xale bi. macha allah kon yooyu. bu fekkee ne ba bàyyi nañ ko xel. Euh, fexe daal xale yi ñu ñu insister ci ñoom parce que ñooy nekk mag yi ëllëg. incha allah parce que nag sa réew. soo bëgg a xam nu mel. seetal ci jeunesse bi nu mu mel. nu jeunesse bi mel su ma waxee jeunesse bi nag. Mhm. d'une manière général la mooy mhm. dafay yóbbaate day yóbbaale jeunes filles day yóbbaale jeunes garçons yi. Mhm. mooy jigéen ñi góor ñëpp la yóbbaale. léegi nag yow. Cheikh Bachir en tant que jàngalekat wala képp ki nga xam ne mu ngi suivre Sunugal 24. na xool tey li xew ci mbedd mi. est-ce que loolu dana ko tuddee tarbiya wala lu mu koy tuddee. wallaay wallaay wallaay na xool tey li xool xew ci réseaux sociaux yi. Cheikh Bachir. Hmm? nga xam ne tey da nga gis ñoo xam ne dañuy xëy di saagaay mag su booba ngoon. bëggoon nañ ci ñëw sax ci. xam naa loolu da nga ci ñëw. incha allah da nga ci ñëw. Mm-hmm. nga gis tey boo duggoon boo duggee ci eh, maanaam bus yi wala nga dugg ci car rapide yi. Mm-hmm. wala nga dugg sax ci oto am ñoo ko bokkal nga gis comportement yi. comportement xale yi. Hmm? Mm-hmm. nga gis ne loolu yëpp dafay firndeel ne. y a quelque chose. boo xam ne war nañ ciy teg baaraam. war nañuy fexe loolu ñu éliminer ko ci ci ci ci xeet wi. parce que nag boo seetloo Sénégal dañuy wane quatre-vingt-quinze pour cent c'est des musulmans. léegi nu ngi mën a nekkee ay musulman ba pare yore comportement boo xam ne mauvaise musulman la. vraiment vraiment. <laughs> Cheikh Bachir loolu xel nangu ko. dafa am benn bind kër bu waxoon lu am solo mu ne dafa dem ci réewu tubaab yi. Mhm. bi mu demee mu ne ci réewu tubaab yi nee na dafa gis ne foofu noonu. Mhm. Euh, islam la fa gis. Mhm. waaye gisul fa jullikat. Hmm? waaw mu ne mu ñëw ci réewu jullit yi. gis ne ay jullikat la fi gis ne gisul fi islam. allahu akbar Cheikh Bachir. loolu moom muy tekki. voilà Cheikh Bachir xoolal xoolal xoolal tey. Mhm. xam nga tubaab yi bu ñu ragalul yàlla itam. respecté nañ loi. dëgg la waaw. parce que am na loo xam ne boo ko defee. Mhm. moom dañ dagg sa xaalis. Mhm. wala ñu yóbbu la kaso. Hmm? mais loolu mooy lislaam. wallaay dëgg la. <laughs> loolu génnul lislaam. ah déedéet génnul lislaam génnul lislaam lislaam mooy loolu lislaam mooy tey. li nga xam ne moom la mooy loi islamique bi nga mm-hmm. xam ne tey aaya alquran la ak sunna wala loo xam ne tey borom xam-xam ñoo ci dajee mm-hmm. dëppoo ci mm-hmm. su loolu kenn ku nekk ñun daf ko war a respecté benn léegi li mu wax ne tey gis na fi ay jullikat mais gisu fi l'islam mais tey génn la nga xool comportement yi est-ce que comportement musulman tey yow soo génnee ci mbedd mi ak li ngay gis wala sax léegi kër gi nga dëkk loolu est-ce que dëppoo na ak tey li nga xam ne maanaam mooy loi islamique déedéet kon su boobaa gis na fi jullikat gaa yaa ngi dem ci jàkka ji di ñëw tey kenn ci ñun xam nga ci dara léeg-léeg nga julli ci jàkk ji ba génn ñu ne la dalli jàmbur daa réer déedéet <laughs> jël nañ dalli jàmbur waaye foo ko voilà voilà voilà xam nga loolu loolu dal na ma dal na keneen waaw man mi dal na ma ay yoon voilà da ngay génn rek ñu jël say dàll ah. mi ki ko jël kan la te dafa julli si woon dafa julli si woon wala wala dafa julli si woon loolu yëpp dafay tegtale ne kon mm-hmm. am na lu xew mm-hmm. loo xam ne tey gis nga mu ñu delluwut gannaaw mm. wallaay dañ toll foo xam ne foofu rëccu dafay pees dafay passé mm-hmm. ay passé te nag balaa rëccu di passé lañ war a taxawee ñun ñëpp nañ jug taxaw ci loolu kon dama bëgg wax ne la euh, wajur am na ci responsabilité état bi am na ci responsabilité mooy lan loi yi nga xam ne tey suñu constitution ñun ñëpp ñoo ko bokk d'accord ci loolu su boobaa loolu na koy respecté amul deux poids deux mesures loolu nag moo am Sénégal walla loi loi amul deux poids deux mesures mm-hmm. mooy lan tey ku ànd ak man loo def jig na la mm-hmm. ku àndul ak man loo def. looy mën na la ca fekk. Hmm. loolu du maandute. déedéet du maandute wallaay. loolu du maandute te loolu itam du indi sax éducation ndax day indi vengeance. Hmm. parce que day waral nit ñi ne waaw kii dafa am ñum faral bàyyi ñi ca des. Hmm. su boobaa nit ñi du ñu respecté état bi. dëgg la te état bi loi yi ñoo ko war a njëkk respecté. xol yi dañuy fippu daal. voilà dañuy fippu dañuy fippu parce que nit ñi tey boo leen di teg lu métti di leen teg lu métti. ñu ne kii ñii. ñu teg dafa am ñu tax ñu teg ko fi waaye teguñ ko fi pour ñëpp. du pour majorité bi moo tax yow xam nga ne Aboubacar Sadiq bi mu faloo loolu la njëkk a dindi mm-hmm, mm-hmm. wallaay dëgg la daf ne yaa ayuha nnaasu qad wulitu aleykum wa lastu bi xayrikum mm-hmm. in ahsantu fa ainuni wa in asaxtu fa qawimuni ba pare ne asidqu amaanatu wal kadiba qiyaanatu wallaay wallaay ba pare ne addaifu fiikum qawiyun indi xata aquda alxaq minhu waaye wa daifu fiikum qawiyun indi xata aquda alxaq minhu wallaay lii lii la amul waroon di jàng la nga xam ne tey état bi yëpp ko waroon di xam wallaay dëgg la xam nga bi mu faloo li mu njëkk a wax mooy yéen nit ñi mhm. yéen ñuy suivre mhm. en direct ci Sunugal 24 mhm. daf ne yéen nit ñi yéen nit ñi ñu ne amu ne yéen a ma fal waaye gënuma leen tey nag. Mhm. <laughs> seetlu ba xam li xew. <laughs> gars yi fi ku falu rek day jàpp ne moo gën yi des moo gën yi ñu des. Ah, surtout sax suñu nguur yi nga xam ne tey léeg-léeg nga gis ay détournement yoo xam ne affaire bi daf lay jaaxal. Eh, dëgg la oustaz xam naa dañ koy tënk foofu. waaw ñu jaaree ci beneen bi parce que boobu itam bu am solo la. waaw kon baax na incha allah mooy mooy rôle lu jàngalekat. effectivement euh, lan mooy rôle am moom ci yar. Mhm. ndax euh, imam. Mhm. man damay gis loo xam ne daf may jaaxal parce que defe naa ne man mos naa ko wax ci sama benn waxtaan man na leen jamono ji ñu toll nii ministre de enseignement lañ xam mais amuñ l'éducation effectivement ma ne leen niñ baatu baatu l'éducation dañ ko dindi mm-hmm. te da ngay dégg ministre de l'éducation nationale mm-hmm. mais édication moo amul ci da école yi daara yi te li ko gën a waral man li ma ci seetlu mooy ñi nga xam ne nii ñoom ñooy jàngal xale yi ñoom ñoo pareegul ci seen bopp mooy comportement yi nga xam ne ni moom ngay gis ci kii war a ñuy jàngale si mm. kooku mënul yar xale bu dee ne xale bu góor la mu nga baraaye dégga bopp bi mu ko dégraté def nga xam ne adduna rek moo ne ci bopp bi léegi comme taxaw ci sa kanam pour jàngal la yow li nga gis ci moom rek déjà comportement bi moo ko njëkk moom moo lay attiré au lieu xam bi bu dee ku jigéen la da ngay gis ñu ne kii madame la mu sol sip boo xam ne ci lupp yi la yem sol daal yu kawe sol benn boti yor benn sac teg greffage xeesal takk ay verre ñoo taxaw ci kanam xale yi pour njàngaleen kooku day nekk benn mannequin bu nekk ci xaram xale yi. est kooku mën na def ci ñoom éducation. parce que ki nga xam ne moo war a yar njaboot gi. Hmm. defe naa ne war nga ñëw ak comportement boo xam ne xale yi bu ñu la gisee dañu ko naw. nga xam ne nii danañ jéem a wax ne man de ni oustaz mel laa war a mel wala madame ni mu war a mel wala monsieur. Hmm. parce que man dama gis sama morom bi ñu jàng bi ñu nekkee jeune. ñoom rôle lu jàngalekat bi yan comportement la war a yor ak lan la war a def ci xale bi. jërëjëf Cheikh Bachir ci question bu am solo boobu. Hmm. question bu am solo boo xam ne dañ ko war a suul ñu teg ci taabal ji nag. Hmm. mais eh, li ñuy tuddee il faut que si mu am ay tanaqut. Hmm. <laughs> yoo xam ne tey. il faut que si tey tamit dem jàngalekat yi nangu xam ne am na crise am na crise bu rëy rëy rëy boo xam ne nekk rek ci jàngal. parce que jàng. li ñuy tuddee enseignement ak éducation ay seex lañ. benn ci ñaar yooyu mënta dem bàyyi moroomam mhm. mooy mhm. éducation bi mënta dem bàyyi moroomam mhm. mënta dem bàyyi li nga xam ne maanaam mooy mooy mooy mooy enseignement bi waaye enseignement bi mënta dem bàyyi éducation parce que ay seex lañ ay seex lañ roolu jàngalekat li njëkk a war a feeñ ci moom mooy d'abord comportement am comme gannaaw boo xam-xam wéyee laa bëgg a wax gannaaw boo xam ne tey am na formation parce que bari na ñuy jàngale te amuñu formation bari na xam nga ne fii boo seetloo bi ñu demee sax gay yi seet yi ñu def ci jàngalekat yi bi nga xam ne président Macky Sall la ñëw na. Mhm. mais gis nañ ne enseignement bi ku ne ngi. ba li ñu dàq sax. <laughs> voilà ah. mais est-ce que noonu la waroon demee. parce que tey nit ki tey lépp lu muy def. Mhm. war na ko maîtriser. Mhm. nga xam ne doo lor ñi nga xam ne tey. ñoom nga war a jox xam-xam. muy benn mooy xam-xam bi d'abord. ñaareel bi mooy comportement bu mu war a yor. ndax comportement bi day feeñ ci corom. comportement bi day feeñ sax ci waxam. ci waxam. da nga wax ci bu baax. Mhm. parce gis nga gis nga gis nga gis nga gis nga ñaari élève mhm. élève ñaari day fan jàngalikatam. Mhm. yow mi xam ko ci dara. léeg ñun ñi dañuy nekk ci école alors man damay nekk ci classe génn sax man mii di wax yow. ma gis su ma génnee. su ma ñëwaatee damay fekk xale yi la ma doon wax ñoom ñu koy wax. nga gis koo xam ne day taxaw fële ne man may oustaz. Uh-huh. ki ñëw ne man may imam. kon loolu da ngay ciy dégg ne kon ñoom ñu ngi enregistré. li ñuy gis dañ koy enrichir ci seen nopp te loolu dafay des ci seen i xel tey fi ni la nga jàng ba nga nekkee xale. Mhm. yàlla xam ne doo ko fàtte parce que euh, xam nga imaam Xasaali dafa wax dafa wax benn wax bu am mhm. daf ne xale. Mhm. xel mi kilisa bu verse la. effectivement dara nekkagul ci. loo ci tiire nag bu nekkee mag mooy bu demee labo. loolu da ngay sotti. effectivement effectivement loolu mooy lu wax ju kenn mënta dindi. waaw kooku na nga xam ne tey nag dafa nekk lu vide. dara nekkagul ci kon la ñuy def ci moom. parce que ndab lu set wécci la la ñuy def ci moom war dañ ko seet. léegi nag moo tax. jàngalikat bi dama la bëgg a wax ne dafa war a am comportement. ci habillement am mooy li muy sol. dafa war a am comportement ci waxam. mais suñ demee ba nga xam ne tey. ay jàngalikat léeg-léeg ñooy am relation sax ay xale yu jigéen ba sax ay ëmb di ci jiitu yaa problème juddoo xam nga yaa problème. dëgg la yaa problème rôle jàngalekat bi d'abord. yemul ci ñaar yooyu képp. mooy xale bi. il faut que si yi nga koy jox bu mu yem ci njàngale kese. mais danga koy joxaale yar. fexe def ci moom li ñuy tuddee moral. def ci moom moral parce que bu njëkk loolu la woon. dañuy def ci yow moral ba nga xam ne tey. ku la gis day xam ne élève nga. wallaay dëgg la. dañ wàcc bu baax kon loolu jàngalekat bi war na ci taxaw bu baax a baax ndax. boo seetloo éducation islam éducation. dafa am ñu ko séq muy lan ay poteaux yoo xam ne mooy téye éducation bu ci manqué rek da gis day feeñ mooy lan jàngalekat bi rôle bi mu war a joué da ko joué soo seetloo parent bi ci kër gi noonu role bi mu war a joué moom tam da ko war a joué su yooyu yëpp dajee mbedd mi état bi la mu war a joué mu joué ko su boobaa xale bi day nekk ku complet walaay ba dégg wax ji bu baax bu baax kon su boobaa gis nga ne jàngalekat bi yii dafa nekk loo xam ne waru responsabilité partagée la rek sa cër voilà ko nekk xale xam ne vraiment mhm. boo ko euh, mhm. nit da ngay gis ne yi nga xam ne bëggoon nañ tey moo am ci évolution da ngay gis ne da euh, euh, naa sax gis nga waxtaan bi xam naa bi dañ la wax ne minute yi bu neexee minute day mhm. dem te doo ko yëg mais nga xam ne ni mu li ñu mujj mooy imaam lan mooy solution. Euh, solution mooy yoon yoon bu ñu war a jaar pour éduquer xale yi. parce que am na tariqa boo xam ne ci lañuy jaar pour am li ñuy tuddee solution pour l'éducation. Mhm. parce que yar. Mhm. dafa am nu ñu koy defee. Mhm. bi ci jiitu mooy bu fekkee ne ci lislaam la. mooy at taadir wala boog sax mën naa mën naa jiite leneen. bi ci jiitu mooy dañuy fexe wax rak li ñu war a njëkk def. ci xale bi mooy fexe xamal ko. kan mooy boroomam. xam nga yàlla soo ko xamee. Hmm. ba noppi. Hmm. su boobaa lu ñëwati mën naa tege. dëgg la parce que mooy fondement ci tabax. Hmm. ñaareel bi ñu xamal ko. ki yàlla yónni ci ñun. mooy yonent bi sallallahu alayhi wa bu buñ ci jógee ko ñu fexe. mu xam diineem. diine ji buñ ko waxee mooy alquran. mais léegi diine bi dañ koy kar parce que gars yi dañuy jël xale yi ñu yóbbu leen préscolaire wala ñu yóbbu leen ci jardin d'enfants yi. voilà loolu mooy dangereux bi nag loolu su boobaa lii rek lay jur. waaw ah. xam su boobaa mooy waral mooy jur ñoo xam ne tey ñooy toj. kaar yi bu njëkk bi xale bi dañ dugg alxuraan. Mhm. jàng ba ci kanam mhm. di wàcc buñ euh, samedi dimanche mu dem jàngi alxuraan. wala sax feet yi mu dem jàngi alxuraan mais loolu yëpp léegi kar nañ la ko indi la ay cours de soir dañu jëlee jardin d'enfant xale bi dootu am benn espace boo xam ne pour defar diina pour mu jàng diinam la loolu nag su boobaa xam nga lu muy jur mm-hmm. mooy jur nag violent bi ngay gis yëpp loolu koy jur mm-hmm. parce que dafa am loo xam ne tey bu fekkee njëkk na cib xale mm-hmm. su boobaa loolu moo koy conduire ci dundam moo tam mag ñi boo si maam ma Malik mosoon na ko wax euh, su ma xasee njëkk ci xale yi ba noppi li ci des garaawut mooy lan bu xasee def ci ñoom xam-xam am lam mu war a def ci ñoom kon lu ñëwati su boobaa ñoom daañ xam nuñ koy téye dëgg la dégg wax ci bu baax. kon mhm. il faut que si tey bu fekkee ne bëgg nañ solution mooy dañuy xamal. Mhm. xale yi seen diine. Mhm, dëgg la. waxuma fortaatu de. mais nañ ko nañ ko jàng xam ko. xam seen diina. voilà nga xam ne mën nañuy xam ñaar yëpp parce que nit am na fu muy toll ci capacité mun na xam lépp lu bari bari mun na ko. dëgg la dëgg la kon il faut que si ñu góorgóorlu ci côté boobu. li ci topp mooy. yoon bi ñuy jaar nag. moo ñu fexe moytule at tadir min at tashabbuhi wa taqlidul ahma. mooy ñu jéem leen di moytoo li ñu tudd nuru mooy lan. Mm-hmm. importé tey loo xam ne. Mm-hmm. Euh, tabaraka la ay culture yu jàmbur la. Mm-hmm. Sénégal fii lu ne am na fi. wallaay dëgg te kenn ku nekk ci ñun tey bu delloo ci maam maamaatam. mën na caa roy. bu baax a baax. te bu ca royee. dana am yar gu ma sëkk sëkk sëkk sëkk parce que mag ñi. yàlla dimbale woon na leen ci côté bi wala boog ñu bari ci mag ñi. kon ñu moytandiku nuru nuru lu mën a jiggaani leneen. tey ñii nii lañ mel rek man nii laa war a mel hmm. wala ma demee jëlee ay ay culture ci li nga xam ne maanaam mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy alxarbiya hmm. déedéet occidentaux yi il faut loolu ñu moytu ndeko jikko yi ñu importé daal eh, eh, mu ñu sonal mu ñu sonal mu ñu sonal te loolu vraiment ñun soxla wuñu ko hmm. am nañ tey foo xam ne bu ñu ci sukkandikoo am yar gu mat sëkk beneen bi mooy ñu moytandiku woomatu gumba mooy lan euh, euh, def loo xamut dëgg la gis naa nit ñi di def rek ma def nga def ànd ak ñoom loolu bu fekkee bëgg nañ éducation bu baax dañ koy moytu dëgg la beneen bi mooy euh, adamul istigraar fi mm-hmm. tanaumi mm-hmm. mooy bañ a lab ci xéewal yu am mm-hmm. nga xam ne tey am na ñoo xam ne tey dem plage nekk ci foo nekk ci caaxaan loolu moo leen gënal lu mën a am te xale bi dafa am loo xam ne tey fi mu am na ñoo xam ne dañ naan dañuy dimbale seen xale ba tax na sax léeg la ñu yóbbu ko sorti léeg la ñu def nangam ak nangam fekk sa xale bi mu demee foofu noonu comportement yi mu gis foofu sax mën naa joué ci xelam bu baax a baax moo tax ñiy génne seen xale di la yóbbu sorti toujours damay wax ne nañu def très attention. ban ban place la ñu yóbbu. Mhm. est-ce que tey war nañ leen lu baax tey li nga wax bi ñuy ubbi sànq. Mhm. bu buñ ne bay 24 décembre jot na wala le premier janvier gars yi di indi cadeau ban cadeau lañ leen di indil. Hmm. ndax loolu daf ciy joué. gis yoo ah. daf ciy joué cadeau bi ñu leen indi ay voilà yooyu fetal bi ñu leen indi tey mooy jàngal leen tiir. Mhm. dëgg léegi xale yi lu ñu def jamante paaka beeg. Hmm. dégg nga de hmm. euh, agression bu metti beeg yooyu yëpp da ngay gis ne tey dañ leen ko jàngal bañ nekkee xale. walaay dëgg la te parent ko jàngalee sax te mu yëgu ko. dëgg la walaay kon ñu bàyyi ci xel beneen bi mooy al ibtiaadu an illahwi al baatil. Hmm. min al ghana. wal musiqa. wal nazr ila al muharramat. bokk na ci yoon yi ñu mën a jaar. pour am éducation islamique mooy lan. sori lépp loo xam ne caaxaan la. te loolu loolu souvent. Mm-hmm. xale bi ci kër gi lañ ko koy jëmbatale te yëguñu ko. dëgg la yow fi ne Cheikh demal ci yenn kër yi benn heure bi. gis nga boo demee ci yenn kër yi benn heure bi. Mm. da ngay fekk ñëpp ñu ngi concentré ci portable xale yi sax ci portable yi ñu concentré. maa la ko wax. wala télé bi waaw wala xam nga télé sax fi ne ni nga naan li koy seetaan bëreetul boo mm, seetloo waaw <laughs> bu nekk ci Facebook bi boo seetloo ci Facebook bi la ñu nekk wala mm-hmm. mm-hmm. sax di seetaan ñoom ak seen njaboot mën nañu bokk di kon caaxaan yi il faut que suñu éviter ko ci ndaw ñi. suñu bëggee am ndaw ñu baax waaye moytu li nga xam ne mooy woyu yoo xam ne. woyu baaxut laa. ak li ñuy tuddee ay musiqa. mooy ay musique yoo xam ne tey daanaka fu mu nekk mu ngi ci noppi nit ñi. fi ne gis ngeen fi ne yow imam artiste bi nga xam ne tey mooy promouvoir sofaan. Hmm. moom lañ gën a favoriser ci yow. wallaay dëgg la <laughs> macha allah imaam euh, <laughs> imaam ah. jërëjëf. Uh-huh. Euh, ñu xam lu bari la ay yu bari la lu bari la mais kii suñu technicien bii di libaas. mu mm-hmm. ngi xamal ne heure bi jeex mm-hmm. li ñuy ñëw rek ci point bi nga xam ne ni moom lañ koy tëjee. ci lu mm-hmm. gàtt rek. muy actualité. mooy gis nañ docteur Mohamed Ahmed Lo. def na benn déclaration ci Grand Théâtre dimanche bi weesu. déclaration bi lan moo ko sabab mooy ne am na ay menaces yoo xam ne dafay taalibe mhm. ñu koy wax xidmatul xadim mhm. nga xam ne dañ doon menacé Ibrahima Khalil Lo mhm. ba tax mu jóg def benn déclaration yow ban jàngat nga am ci déclaration bi ak menaces yi ak itam ñi nga xam ne nekk ci réseaux sociaux yi ku mel ni ki Moussa Camara ku mel ni ki Adamo mm-hmm. di saaga mag ñi yow actualité yooyu ak ñaaw jikko yu ñaaw yooyu daal euh, noo ko jàngatee yow. xanaa di ko ci gàtt rek ci. voilà voilà xam mm-hmm. naa lu lu metti la. Mm-hmm. Cheikh Bachir puisque réew mi ñoo ko bokk. wallaay dëgg la macha allah. ay nit na bu bokkee lu ñu mënta séddoo kenn ku nekk la cay wàllam na ko jot. Euh, la ca moromam boobu mu bàyyee ko ko. voilà la ca moromam très bien la ca moromam mu bàyyee ko ko. Mm. mais man dama gis ne mënaas jaru ko. Mm-hmm. bu nit bindee ci xam-xam. Mm-hmm. wax naa ko en direct ci benn télévision. Mm-hmm. bu nit bindee ci xam wax loo xam ne bokkul ak la nga xamoon. wala boog jàpp nga ne wax ci contre vérité la. da koy bind tontu ko. ci xam-xam. te bañ koo menacer bañ a dal ci kawam te fii nag réew mi kenn ku nekk am nay bokk. soo dalee ci nit. Mhm. ay bokkam jóg. Mhm. dal ci sa kaw. Mhm. su boobaa pëccaxu rek lay indi. wallaay dëgg la te violence baaxul ci réew mi voilà loolu nañ ci mu nañ ko moytandiku. wattaqu fitnatan laa tusiibanna allaziina zalamu minkum xaassa. wallaay wallaay wallaay moytu rek moytu. moo tax su ko defee loolu moom maa ngi ci woo ñëpp. bu fekkee ñu féetee ci benn côté bi daal xidmatul xudaam. nañu nañu nañu moytu loolu bu baax a baax a baax parce que am nañ kilifa. lu mën a am nañ dem wax a seen kilifa. seen kilifa xam na fu muy jaar. su ko defee mu wax ak kam war a waxal. ñi bokk toog waxtaanee ko tax Cheikh Ahmad euh, Lo. Euh, xam-xam xam-xam la yëkkati. buñ koy tontu nañ ko tontu ci xam-xam. muy yeex dégg nga wax ci bu baax. dëgg la te yaakaar naa sax am na loo xam ne bu ñu toogoon benn table ronde. Mm. Mm. balaa ñu faa jógee sax solution am. Mm. mais xam nga ñun ñemuñu débat. dëgg la. Cheikh dëgg dëgg dëgg boo waxee dëgg te yàlla tax gars yi mën nañu nekk laqatu ci seen écran ah, wala ci seen gannaaw portable di saaga di wax mais bu fekkee ne débat ci leen woo ci xam-xam da hmm. gis ne dañuy reculer hmm. te warta demee noonu warta warta ne kon loolu dama bëgg a wax ne hmm. loolu wax dëgg yàlla solution te réew mi soxloo ko réew mi fi ne tabax ci lañ toll tabax ci lañ toll kon lépp luy indi pëccaxu loolu soxlooñ ko ba ci élection yi jublu sax gars yi nañ moytu ne ko lépp loo nga xam ne dañuy laqatu ci réseau sociaux yi. Mhm. Euh, di saagaak ya ci aju. Mhm. ñu ba fekkee am na ñuy bokk nañu wax ak ñoom. dëgg la parce que gis nga nitu yàlla di ko saaga. Mhm. ku koy def xamul nitu yàlla. parce que deret yi nitu yàlla. dañ koo tooke. bu la dalul léegi itam. wallaahi la azim man maa la wax lii. nañ toog ba ca kanam da ko gis. dëgg la am benn werante ndax yonent bi moo ne man aada lii waliyan faqad aadantuhu bil harbi. wallaay dëgg la macha képp ku noonu sama wali déclaré naa la guerre yàlla ku mën a guerre ak kenn mënta guerre ak moom. kon yi ñuy def muy Adamo muy Moussa Camara. Mm-hmm. di saaga mag ñi. Mm-hmm. wala nga leen di sosal loo xam ne sax yow xamula ci dara. Mm-hmm. histoire bi buñ la tegoon ci kanam penc mi ne li ngay wax nii foo ko teg mënu ko justifier. nekk naa fu sori. xam naa ne ñii seen démocratie maye na lu nekk. Mhm. liberté d'expression ba tax lu la nee nga wax. Mhm. loolu teguwu ci dëgg. dëgg la walaay te ku leen bëgg a dimbale. Mhm. dafa dañ leen wax ne li ngeen def arrêté leen ko. dëgg nag bëgg bëgg bëgg buzz. bëgg alal. Euh, yoo xam ne dañ leen ko jox ba mu tax tamit nga wax loo xam ne waxu sa. macha allah. jërëjëf euh, Imaam Omar Badiane kontaan bu baax a baax ci waxtaan wi am na solo neex na lool macha allah. jërëjëf xam naa ne bu ñu sañoon sax mu gën fee yaatu. mais bu yàgg la ñu suñu euh, technicien bi waxoon ne suñu euh, heure jeex na xanaa kay ñu jox la rek euh, sa kàddu yu mujj incha allah. voilà xanaa di la sant di la gërëm di di gërëm Libaas. ak mhm. ak directeur. Mhm. waaye tamitam di gërëm tamitam fi ñu jógee ko mooy Cheikh Aliou Ndiaye. Mhm. Euh, sunu directeur général ak euh, Dame ak euh, Youssou Guèye. Mm-hmm. ak mboole mbokk yi nga xam ne ñoom lañu bokk nekk ak unité bi ma jógee muy unité 16. Mm-hmm. ci imaam yi jàkka jaak dëkkandoo yeeg. sunu yaay jama mi nekk ci kër gi ñëpp incha allah ci Bachir jërëjëf. jërëjëf imaam Omar Badiane ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm mu jóge ko fee ci Africa 7. dafa liggéey liggéey bu am solo ci wàllu diina kon mbokki jullit yi mbokki àdduna bi lii moo doon seen émission leerlu ngeen ci doon ànd ak seen mbokk Oustaz Bassirou Thioune ak imaam Omar Badiane ñu ngi leen di jox rendez-vous beneen yoon ci beneen émission ak beneen gan wala ak beneen émission ak yéen incha allah euh, jërë ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.